alaykum man maa ngi tudd maître yassine Diallo expert et spécialiste en sécurité des biens et des personnes physiques. École de formation en tant que tel c'est soumis à des règlements juridiques de notre pays loolu ci règlement il faut nga mu bokk ci li nga xamné ne li tënk réew mi waaye nag yoon may ma si biir agence yi nga xamné ne yor ñuy former ay éléments yi nga xamné ñom lañuy recruter awa ñu lay yobbu ñuy liggéey sur le terrain waaw agence bi ni muy liggéey kay moo di mooy comme ni presque yeneen agence yëpp di liggéeyee moo di euh, agence bi d'ailleurs c'est un groupe xam ne am na ñoo xam ne feeñuñu ngi ci gannaaw taxaw taxawal agence bi pas pour utum xaalis d'ailleurs mais pour defaraat secteur sécurité privée bi se à dire li yëngu ñi lépp li nga xam ne dafa ñi ñi nga xam ne dañuy yëngu sécurité privée ñu jëm la ñu jëm defar secteur boobule defar defar secteur mënoo ko def nag te defaroon nit ñi nga xam ne ñoom ñooy dem liggéey ci secteur bi loolu moom mooy suñu suñu yëngu-yëng te loolu moo tax ñu ñëw taxaw takku taxaw ci sécurité privée bi su ma ko tekkee ci tubaab mooy organisation et la professionnalisation du secteur privé de la sécurité loolu moo tax ñu ñëw parce que ñun suñu àdduna yëpp sécurité lañ ko def du ma ne ay professionnel lañu waaye nag ay technicien lañu nga xam ne suñu xam màcc na xam-xam màcc na lool ci affaire sécurité donc moo tax ñu taxaw ñu ñu takku taxaw taxawal lii pour dimbali xale yi parce que boo xoolee tey eh, dëkk bi société agence privée de sécurité bi ñoom ñoo ëpp ci li ñuy employé ci réew mi ñuy jël ci emploi ndax boo xoolee actuellement état bu doon recruter téeméer société agence privée de sécurité ñu ngi jël juróomi téeméer donc mun naa wax ne ci loolu sécurité privée réservoir d'emploi la moo tax ci loolu état bi ci boppam waroon nañu am motkaay takkute nii taxaw non seulement pour dimbali agence société privée de sécurité yi ñu mën a motal la xam ne moom lañu wara doxal ci réew mi mais aussi mën nañu mën a collaborer ak ñoom pour que sécurité bana gëna a mën a yombamaay ndax boo xoolee ci loolu eh, mën ngaa dem un kilomètre yaa ngi dox gisuloo policier gisuloo militaire gisuloo gendarme mais mën naa la wane 10 mètres 15 mètres boo dox mën nga gis benn waay bu taxaw ci buntu buntu kër jaabur sol tenue wala buntu bureau jaabur wala buntu euh, magasin jaabur yu demee noonu mooy ñi nga xam ne ñi jóge ci agence société société privée de sécurité yi donc ci loolu ñooñu tey état bi su bëggoon mo su bëggoon vraiment dimbali population pour motal sécurité bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñu ànd ak ñooñu société yi nga xam ne xam nañ leen xam nañ liñ mañ xam nañ fu fuñ jóge contrôle ñu ngi leen mën a contrôler c'est-à-dire euh, di xam ci ci lan la ñuy yëngu mënoon nañu ànd ak ñoom di liggéey ci wàllu information yi bu ko defee daañ mën a euh, motal insécurité et nu euh, manquement bi nga xam ne dafa am ci insécurité bi. expliqué loolu nag dafa may neex lool parce que soo waxee l'homme de sécurité est partout et nulle part moo di premièrement. la mu tekki moo di ci àdduna bi ñu nekk nii malheureusement ci Sénégal defuñu loolu seen jëmu seen seen euh, seen ligne de conduite mais jiitaluñu loolu quoi mais tey àdduna bi munul lépp loo mun a yëkkati ci lu jëm ci wàllu euh, développement économique et social ci sama xam-xam man tant que jiitaloo sécurité loolu munul am kon donc sécurité bi moom moo mu nekk ci commencement bi ak fin bi pour nit nit ki nga xam ne dafay liggéey ci loolu mu bëgg a développer réew bëgg a développer ay projet am bëgg a développer li mu bugg a développer il faut d'abord sécurité am su amul sécurité ak fu mu nekk amul sécurité ak moom nekkul ci sécurité kon développement du am premièrement loolu l'homme de sécurité est partout et nulle part deuxièmement euh, l'homme de sécurité est partout et nulle part aussi euh, le policier le gendarme le militaire du peut être là mun na fi que nekk ak

subitement ñu agressé la la ngay ñekk xalaat moo di kooku nga xam ne day yëngu ci wàllu sécurité policier bi wala gendarme bi mu ñëw wonu la pour nga génn ci situation boobu bu fi nekkee ak bu fi nekkul yëpp xel mi moom waa ji war na fi nekk wala mu ngi fi parce que moom rek moo mën a régler question boobu donc eh, pour gàttal ci ñetti yëf yooyu ñetti fànn yooyu Je yem mais parce que l'homme de sécurité partout et nulle part mun fi dem États-Unis Chine bo Japon munoo dem Afrique le moins incontournable sécuritairement sécuritairement le moins incontournable donc mun ko di mais le mot met en exergue la primauté de la sécurité euh, sur le développement économique et social un, un eh, citoyen qui fait face subitement à une agression physique dans la rue, sa première réflexion, c'est l'homme de sécurité pour se tirer d'affaire. Donc, gâtel, am na ñoo xam aussi dañ fi nekk xew am ay ngente ngay def y a des policiers ay gendarme ñoo xam ne ñu ngi si ngente li xamuloo ne mënoo poli xam policier la wala gendarme lañu parce que et pourtant ñu ngi fi di liggéey moom pour mun a sécuriser nit ñi pour mun a am ay information xam lan moo xew exactement loolu pour gàttal loolu moo moom moo wënd tur boobu man li ma ko jàngatee en tant que spécialiste de sécurité affaire bu doy waar la doy waar pourquoi parce que sécurité bu buñ ko waxee dafa am borom sécurité dafa am borom du fu waay jóg rek ak ku waay jóg rek daal di ñëw naan man professionnel de sécurité la damay def sécurité li ko waral nag moo di euh, dafa am li ñuy wax ci Sénégal la la prolifération ci tubaab. la prolifération des écoles privées de garde du corps, qui n'est soumise à aucun règlement juridique de notre pays. D'ailleurs, dans il faut la commencer. Nama école yoyu yow soo ne saa yow fu mu dem créer école commencer former naa ni unis sécurité créer sa école de former Qui du la contrôler il y bàyyi la ngay former Il ñi di encaisser deux cent 000, deux 000, par heure et par personne. donc li dugal xaa nit ñi ci xaalis boobu man jàpp naa ne trian la d' abord parce que sécurité nee naa leen dafa am borom sécurité boo ko waxee dañ ko dañ koo jël ci jargon c' est à dire ci nekk militaire lañ jëlee sécurité léegi nag ci sécurité ñu ngi war a def lu gën a am important moo di ci li ñu choisir depuis les indépendances c' est à dire bi ñu amee indépendance ba léegi police gendarmerie militaire ñoom ñoo war a def sécurité waaye boo xoolee comme ni nga ko waxee ci ñooñu le tey ñi exercer métier boobu da ngay gis koo xam ne day dem dugg ci salle de fitness body training yenn weñ boo miskilam yi tàng jër mu yaakaar ne fu mu toll ni gaynde bu taxaw ci kanam mu lem ko moom mun naa nekk professionnel de sécurité pour lui moom professionnel de sécurité la mu ñëw mun naa am bu dem ubbi benn local commencé di former eh, di di di kii daal di am ay complicité aussi ño xamné ne peut être xam ba ñu mu leen di wo ñukoy jappalé jàppale ci ci liggéey lé mais c'est pas parce que lool dafa wara am li gëna am danger nak ci Sénégal actuellement moy ñoñu parce que xamuñu ñom ñoy kan parce que néna la sécurité dafa am borom té sécurité da ngay xam yow yaay kan ak lan nga doon d'abord ñoñ na xam xamuñu ñooñu kan xamuñu lan lañu wara def kañ la ko wara def. ak lan lañ koy defee donc léegi dugg nañu jël ay xale yoo xam ne yàlla def na ne xale yooyu soo moytu am ñu sax euh, seen loxo jotul seen gannaaw ñu former leen ci affaire xeex former leen ci affaire armu bàyyi leen ah, ci mbeddam ñuy dox ñooñu nag tey soo ne si yow boo woowoon kenn ne ko ah man day tey dama am ku ma ku ma amaloon affaire ñaata nga bëgg ma fay la nga dem dooral ma ko. da lay ne jox ma jox trois cent mille boo ma joxee trois cent mille ma dem éliminer ko léegi boo ko joxee trois cent mille mu dem éliminer ko et ça c'est dangereux dans son pays de droit dafa garaaw ci pays de droit ah oui pour loolu moo fi am loolu moo fi am man damay dama wax ne même si biir euh, l'ouvrage livre boobu ma bindee dama ne ci ndaje ndaje de personnalité am ay sécurité d'État le colonne de gros bras bu ñu ñëwee nañ leen contourner canaliser leen avant ñuy créer incident mu ngi si biir bu kenn parce que ñooñu au lieu ñu yokku sécurité dañu au lieu ñu yokku sécurité bi ñoom ñooy créer insécurité bi bon boo xoolee partout actuellement waxuma Tamba kese <laughs> waxuma Dakar waxuma déjà gis nga Matam li fa gis nga Touba gis nga partout ñoom ñooy attaqué ni ñi di wuti lu neex ki ñu àndal di wuti xaalis et malheureusement amuñ ci xaalis parce que liñ ci encaissé ay dix mille francs quinze mille francs vingt mille francs trente mille au maximum or agent de sécurité bu baax te am formation bu baax nangoo liggéey war ngaa dund ci la ngay liggéey sanga sonn sanga agressé kenn sanga ñaani kenn sanga woyaanu donc ci gis naa ne ñooñu nga wax ne soxna ñoo yokk insécurité ci réew mi au lieu ñu créer la sécurité mais dañu indi insécurité totale et définitive et d'ailleurs même ci ci kii bi nu mu tati ñooñu dañu dem boo dajee ak ay policiers ak ay gendarmes par exemple euh, éléments yi nga xam ne dañu génn BIP wala génn GIGN nga xam ne c'est des forces spéciaux ñu leen di bumax parce que ay politiciens la ñu àndal ñooñu duñu duñu riposter parce que dañu ragal politiciens yi affaire jaaree si kaw ci ministre bi créé leen ay problème donc dañu ragal riposte et ça c'est grave dans un pays c'est de l'anarchie actuellement ce qui se passe en matière la sécurité ci Sénégal actuel c'est de l'anarchie tout sauf ça tout sauf la sécurité il faut que nag l'état bi l'état si boppam xoolaati taxawaay yooyu parce que loi bi da koo tere et donc comme loi bi koo tere vraiment képp ku yëngu ci sécurité te xam nañ sécurité buñ ko waxee c'est l'état c'est l'état donc l'état warul seetaan yenn yi ba muy ëpp loxo te bu ñu ko seetaanee dana toll foo xam ne danañ ko bëgg arrêté mu tooleen te bu boobaa ñooñu ngay wax noonu bu ñu amee benn waay bu jóge ci yàlla fële jóge ay yore ay walisi xaalis danañu attaqué état bi danañu attaqué police ak gendarmerie ak l'armée waaw euh, loolu nga wax noonu lu am la état sécurité bu ñu ko waxee état la moom mais boo xoolee benn policier téeméer nit kooku moom xam nga ne doyul tax quand même nous ñu créer ñu daal une autorisation ay nit ñu créer société de privé agence société agence privée de sécurité té te ñu état bi mën nañ leen contrôler mën nañ doxal ñom xam nañ ci li ñuy yëngu actuellement parce que ñoom mënuñu nekk partout mais quand même c'est pas parce que ñoom mënuñu nekk partout il faut ganar bu jog rek daal dem créer école de sécurité wala nit ku jóg rek daal dem créer école de sécurité naa ni man formateur la wala damay jàngale nangam nangam am naa xam-xam gi te yàlla xam na ne yow xam-xam bi tax ñuy wax ci sécurité amuloo ko xam-xam d'ailleurs boo ngay buy yow bi nga war a def yow d'abord yow pour nga sooyee sa bopp sax amuloo ko te loolu moo jiitu parce que sécurité balaa ngay naan da ngay dem sécurité kenn d'abord il faut d'abord yow nga xaar sa sécurité bopp élémentairement donc ci état bi actuellement man lima gis modi comme ñun lima la ko waxé ñun dañu jox pour jàppale état bi ci fànn yu bari ci formation bi ci organisation bi ci orientation bi yaay de wax ji ak ci placement yépp pour que secteur bobu état war ko mëna contrôler xam ñan ñoo fi nekk ñu ngi nekkal kan ak kan lan lañuy def ak kañ lañ koy defee lolo tax ñu ñëw donc ci secteur boobu tey anarchie bi am ci secteur bi état bi ñoom man li may ñaan moo di ñu jóg rapidement taxaw ci parce que groupe de sécurité yi nga gis nii figuré wuñu fenn loi da koo tere règlement da koo tere disposition yëpp da koo tere donc am na nag état ak doole gi ñu am am na loo xam ne war nañ koo teg pour quand même parce que citoyens yëpp gros bras yoo ñii amul doole les puissants comme le faibles si ay citoyens sénégalais lañu am nañ droit am emploi décent mais emploi boobu aussi dañ koy teg ci règlement ci ci fondement yi nga xam ne réew mi ci la tenku ci lañ koy teg pour que mbir moom mun a jaar yoon waaye jóg rek tegal sa école former ay nit bàyyi leen ñuy def di dóor nit ñi di jam nit ñi di di di jël jaas di góor nit ñi di dóor ay nit ñi bal ah non loolu taxul ñu wax sécurité ci ñun ñun ñoo njëkkee wax loolu parce que euh, ba ma toogee ak directeur général bi ak secteur général bi lañ wax modi di seen élément bëgguñu mu dem ci campagne électorale parce que dañ lay eh, recruter né la da ngay dem garder nit mais finalement do dem garder nit genre groupe d'action ngay doon ay milice ngay dem di xex té ñun du ñu yóbbu kenn pour mu xex parce que lool taxu ñu tax liñu taxa moo modi ñooñu ñuy xeexal pour protéger ñooñu kon du ñu jóg pour protéger les faibles c'est-à-dire ñi nga xam ne amuñu doole ba pare ñu dem di leen door donc ci loolu ñun ñoo njëkk nekk société boo xam ne dañu bañ dem ci affaire campagne électorale pour yóbbu fu ay ay ay nit pour ñu xeex milice yi nag moom mooy école de privé de sécurité yi ma yi ma lay wax rek moo indi milice yi parce que koo formé koo xam ne amul xëy amul du xëy du gontu amul lu muy lekk mais ku ko fay xaalis mu dem def eh, li nga ko laaj école milice yi boo ko déggee te milice moom figuré wul fenn milice mooy jeune volontairement yi ñu jóg pour dimbali état non non état soxalul loolu état soxalul milice état li mu soxla mooy une une entité bien reconnue bi ñu xam ne xam nañ ko xam nañ li muy yëngu kooku war nañu mën a liggéey moom pour ñu jàppalante sécurité bi waaye du ay milice donc ci loolu eh, vraiment ñun ano eh, ano ci suñu côté. d'accord ñu tay d'accord ñu lay té duñ ko def pour envoyer ay nit ci campagne électorale pour ñuy door ay nit lool duñ ko def ku ko def nak ku ko def nak aussi ku envoyer sa nit ya xam waye milice aussi bu dem na nga japp né après élection présidentielle yi ya xam da nga bokku ci camp présidentiel bi ya xam di nga bokku ci camp ci camp opposition bi après élection présidentielle bi plainte yi fay daanu te plainte bu daano ah dañ la woo de en matière pénale la responsabilité individuelle naama kenn ku ne boo defé jeyo ah man de du ma def jeyo ñu wo ñu wo ñu wo yand yand Diop déedéet man la ñuy may répondre may wuy té na wax lu tam def lolu kon donc kenn ku ne na nga na nga xamné boy def na nga xam loy def parce que bu ëllëgee quand bo mëna bokku bu plainte bi daano daal la da nga di nga expliquer lu tax nga def li nga répondre waaw critère de recrutement dafa am bo waxee recrutement dafa am critère critère bi modi premièrement d' abord être de bonne moralité c' est à dire sénégalais boo xam ne euh, am nga këyit te am loo problème ak justice këyit yooyu lañ ñay jëkk laaj bu ñu nee këyit yooyu parce que bu jàpp na nga jàpp ne euh, incident dafee am fii wala wol am wala agression am ñu ne non non non sénégalais bokk ci du ñu ay sénégalais étranger c' est faux majeure partie bay sénégalais lañu sénégalais li mu ñeme kenn ñemewu ko kenn ñemewu ko donc ci loolu. ñun euh, dafa am dossier ñu lay laaj dossier ñu lay laaj dinañu won né yow musu am problème ak justice musu am problème fenn ci lo xamné dafa jëm ci affaire ñu njaaj bu ko défé ci lool lañuy jël à partir de la ñu lay wo dafa l'entretien yob la formation théorie comme pratique bu loolu weesoo nak ñu yob la placer la nak ci poste yi nga xam ne ci lañu yaakaar ne boo demee di nga mën a def liggéey bi pour yow tam nga nga mun a numkat yi eh, am li nga war a am waaw li ma ci dolli rek moo di eh, di leen nuyu di leen sant ci ñëw bi di leen gërëm ak seen waa rédaction bi yëpp di wax sénégalais yi kenn na ku ne na nga xam ne yow yaay premièrement yow yaay sa policier bopp yow yaay sa gendarme bopp yow yaay sa militaire bopp pour élémentairement nga mun a nekk en sécurité parce que sécurité d'accord police gendarmerie armée la mais sécurité aussi citoyen bi la citoyen bi am na loo xam ne da ko war a jiital ci boppam pour mu mun a nekk en sécurité bu jiitalu loolu fu mu dem dafay nekk en sécurité ci loolu maa ngi woo citoyen yëpp sénégalais yëpp kenn ku ne ak foo toll mag ndaw xale ñu nekk seen policier bopp et seen gendarme bopp pour mun a euh, sécuritairement nekk euh, def élément euh, ba élément de base sécurité bi avant police ak gendarmerie di mun a ñëw pour motal loolu ensuite di laaj yi di leen wax ne aussi nañu jënd livre bi livre bi bi ñu intitulé l'homme de sécurité partout et nulle part buñ ko jëndee kenn ku ne boo ko liiree daa nga xam nan ngay doxee ci sa àddina di nga xam nan ngay doxee si àdduna mu que ce soit nga nekk Sénégal wala nga nekk Gambie wala nga nekk Mauritanie wala nga nekk France wala nga nekk États-Unis livre boo ko yore moom dina la guider di nga xam nan nga war a taxawee te doo am problème boo xam ne vraiment lool nga ragaloon loolu ci laay terminer di nuyu sénégalais yëpp di leen sant leen gërëm.